ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom ñoo ngi koy bàkk di ko kañ ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ne sunu boroom rek mooy ki ko jagoo ñu ngi seede ni képp ku sunu boroom gindi kooku aji gindeeku lay doon ba faaw te dara mënatu koo dënguloot ku sunu boroom bàyyee ak boppam ba mu sànq kooku aji sànku lay doon ba faaw te dara mënatu koo gindiit noo ngi ñaan sunu boroom mu boole ñu ci jaamam yi muy gindi mbokk yi xam ngeen ni ñu ngi nekkoon ci sunu bind bi tafsir alquran al azim sunu boroom defal na tawfiq ba ñu yegg si ci saar wi di suratu luqman bu ngeen fàttalikoo ci sunu bind bi weesu amoon nañ aslëf ci nettalib luqman al hakim waxoon naa leen wuute gi nga xam ni moo am ci borom xam-xam yi ndax luqmaan ab yonent la wala déet liñ waxoon ni mooy li gën a dëgër mooy luqmaan du yonent dëgg la nag borom xam-xam yi wax ni yonent la seeni tegtal tegtal la yu dëgër ci wet ndax qaraa'in yi nga xam ni moom lañ sukkandiku ci téere sunu borom bi di alquran daanaka fu ko sunu borom tuddee rek ci yonent la ko daan tudd waaye boo seetloo ba ci biir ak borom bi ni mu tëree yonent yi ci biir alquran ak waxin lii mu wax ci bind bii comme ni ma ko leeraloon ci dars bii passé lañ jàpp ni mooy li gën a dëgër mooy dub yonent doonte am nay borom xam-xam yu mag yu jàpp ni yonent la wa ala kullin luqmaan kéemtaanu suñu borom la woon xam ngeen ni sunu borom nee na yu'ti al-hikmata man yashaa wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya xayran kasiira waxoon naa leen ni xam-xam ak xikma bokkuñu bokkuñu su ma ko waxee mooy xikma yóbbaale na xam-xam bu dee bi ci suñu borom di wax ci alquran donte nag xikma ci nit ñi mën naa bañ a firi xam-xam borom bi subhaanahu wa taala dina dénk nit xam-xam waaye du ko dénk xikma am naa borom bi su dénkee nit xam-xam ba noppi dénk ko xikma nag kooku moom la yëg ni faqad uutiya xayran kasira moom suñu borom jox na ko ci aw yiw loo xam ni lu rëy la di nga gis koo xam ni suñu borom dénk na ko kereñ muy as lëf ci xikma doonte du borom xam-xam ma wax ni kooka lay manqué manqué rek mooy xam-xam ndax xam nee naa leen léeg-léeg nga dégg fii ci suñu réew mi ñoo xam ne wax dëgg yàlla la muy wax la ca ne ci ay ak kereñ bu ko xam-xam ngemboon rek mu nekk kéemtaan waaye ñàkk xam-xam nga moo tax boo dégloo tuuti rek daal di tàmbali déggum jaxas sunu borom subhaanahu wa taala ci mittili bii nga xam ni moom la ñu nekkoon mu mittili bi luqmaan su fekkee juumu mbaa ma fàtte mi ngi taxawoon ci laayey fukkeel ak ñeent sunu borom di wax ni baada aoudu billahi min alsheitan irajim bismillahi arrahmani arrahim وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير kon foofu ci laayay fukkeel bi ak juróom-ñeent sunu borom subhanahu wa taala mi ngi ñu doon nettali ci sunu bind bee weesu comme niñ ko gisee nettali Luqman al-Hakim sunu borom mu ngi ñun yàlla ñun ñoo jox Luqman xikma mu war caa sant sunu borom te képp ku yàlla defal xéewal mbokk yi na ci gis yàlla subhanahu wa taala loolu lu am solo la gis nga doomu aadama bu xamoon boppam bu tiitaru ci li ko suñ borom dénk ndax bu dee ay at ñu la mag rek a fi nekk te amuñu ko bu dee koom-koom ñu la ëppalee fi nekk loo mën a nag ci àddina rek doomu aadama am na ñu ko ko waroon a mën a ëppalee borom bi subhanahu wa taala dénk ko ko loolu séddab suñu borom la moom laa leen waxoon moo tax yuusufa noona la defoon moo tax suleymaan noona la defoon moo tax yonente bi sax sallallahu alayhi wa sallam même bu dee ana xayru wala di aadam wala faxra la ciy teg li aadama jur maa ci gën yàlla xam ne ne tiitar taxut ma koy wax nag noonu la ko doon waxee sallallahu alayhi wa sallam gis nga kon nit ki bu ko sunu borom jotee xéewal da caa war a gis sunu borom sant ko ca sunu borom mu ni ku sant day sant ko day dellu siwaat ci yow waaye ku xarab mu weddi sunu borom mu ni sunu borom day ku kéemtaane la ndax moom ku ku doylu la ku ku ku ku xoomal la waaye ku ñu gërëm la Luqmaan xikam ak durar yi génn ci làmbañam yi la ci njëkk mooy ci liñ tàmbale mooy laa tushrik billah gisoon ngeen ko ci dars bi wes jërul baamtuwaat la ca topp te wax naa leen dafa mel ni Luqmaan lii suñu borom da ko cee da ko cee dugalal muy wasayna al insana bi walidayhi dénk nit ki ñaari rafetal ci ñaari way juram waxoon naa leen tamit rafetal ci ñaari way jur ak ñi ko lislaam jàngalee suñu borom ni wa in jahadaka sa ñaari way jur buñ la gëtanee mooy buñ la gëtanee ala an tushrika bii ngir nga bokkaale ma man ak man yàlla ak dara ma laysa laka bihi ilm loo xam ni amoo ca xam-xam amoo ca xam-xam mooy lan mooy loo xam ni amoo ca xam-xam bu lay wan ni lii dagan na nit ki def ko bal kay la nga xam daa wuuteeg loola daf jàng nga luy tere bokkaale gis nga de xoolal ndénkaane yi ni mu toppalatoo ni mu toppalantoo comme caq comme peri caq ndax nit ko njëkk a dénk mooy bul bokkaale yàlla ñaareelu ndénkaane bi mooy rafetal jëme ci way jur waaye wuy jur moomee su dee def laa gëtëm ngir nga def lan la mu njëkk a tere ci ndénkaane yi muy bokkaale su boobaa seen borom ni fala tuti'huma bu leen topp ca loola wa saaxibuhuma na nga ànd ak ñoom fi dunya ci àddina maarufan ci njekk aaya jii de mbokk yi ñun ñëpp tey sa këf ki moom neexul de borom bi subhaanahu wa taala ci laaye ji da ci njàngale njàngale mu am solo moo xam ni nin koy rombee di jàng noonu lañ koy ñàkkee seet te loolu mën naa daal sax ab jàngkat fadlan an gayri suñu borom mu ni bu fekkee say wayjur dañ laa gëtën ngir nga bokkaale yàlla ak kenn waxuma la ak lenn falaa tutaahuma bu leen topp waaye wa saaxibuhuma fi dunia maarufan xoolal wa saaxibuhuma fi dunia maarufan fi mu ñëwee wayjur yi li mu lay woo mooy li yàlla gën a bañ defe naa lu xam na bokkaale la suñu borom gën a bañ ku koy def te du ko jéggaale ku ko faatuwul xoolal suñu borom lim gën a bañ kala kay woo dane bu ko topp ba pare muy loo man rafetalal jëm ci moom mbokk yi est-ce que ay ji seetlu nañ ko li suñu borom gën a bañ la la kii di woo nga xam ni bu doon nattu doomu aadama kon danaan bul ko topp def ko def ko wax lu bon sax jëm sa moom bokk wala sax tong ko wala rey ko wala nangam ko waaye déedéet way jur ak bi mu am suñ dafa foor fooraay boo xam ni même bu la doon bokkaale loo yàlla bañ a bokkaale dong nga am sañ-sañam waaye sañoo ñaawal jëm ci moom allahu akbar lii fiq bi ñun ñii ñoo ko gën a aajowoo keneen ko dut ñun ndax ñun fiq bi amuñu ko ñun foog nañ ni ku yàlla nag koo nga xam bokkaale ba mu leer nga di ko jëfee saa bu say wayjur nekkul fi li nga nekk rek sañ nga leen a wax lu la neex sañ nga leen a xañ seen i àq bu ñu waxee nga ni kii dafa réer kii dafa nangam mbokk yi loolu day teggin de wa saaxibuhuma fi dunia maarufan la wax li ngeen séq ci njëkk ak rafet nga xam ne dugg ci bokkaale bi lépp na nga ko matal bu dee yaa yoro dundam bu mu manqué bu dee ma loo koy jox par weer bu mu manqué boo yore bu woto bu la ko àddee abal ko ko lu dul muy dem ci mooy yàlla nga xam ne lii ci mooy yàlla la su ma ko joxee li ma ko war a jox day dem moyee ji ko yàlla sa yoon nekkul ci loolu de yow toppatoo sax mooy yàlla yow bul mooy yàlla waaye kenn bu ma ko joxee da koy mooyee yàlla sa yoon nekkul ci loolu yow sa yoon nekkul ci loolu gis nga léeg-léeg def def yooyu ngay xeet subhanallah benn waaye dafa toog mu yàgg mu ne gis nga tey dinaa sarxe sarxe boo xam ne kéemtaan lay doon mu sarxe ca guddi ga xëy ñu ne ko yow de njaalakatu koñ bi nga ko sarax mu mer ci loolu xëy mu ne xaar ba suba te suba sa mu sarxewaat sarxe mu foor ñu ne ko yow de sàcc bu koñ bi nga ko sarax mu amati jaaxle ci gannaaw suba sa moom fagoro ba noppi ndekete ki gën a am xaalis ci koñ bi la sarax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni waaw sarax yépp jàll na ndax sa yéene yow yegg na yow njaalokat bi sarax bi nga ko sarax amaan na yàlla jaaree ca loola nekk sabab mu bàyyi njaalo sàcc bi sarax bi nga ko sarax amaan na mën naa nekk sabab mu jaaree fa bàyyi sàcc waaye borom alal ji bis bu ñibbee mu xam ne xëy na moom nii da nga koy jàngal demal joxe si sa alal ji comme kii ni mu doon joxee moo tax ñu defal la war rek defal la war rek gis nga rafetal jëme ci wayjur même bu nekkee nekkul ci dëgg dalaa war yow mooy lépp lu dox sa diggante ak moom ci ay njekk na nga koy matal mooy saaxibuhuma fi dunia na nga ànd ak ñoom ci àddina maarufan ci njekk bul ko gëjj bul ko arsale waxfid lahuma janaha dulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagiran suñu borom ni rabbukum alam bima fi nufusikum léegi nag kenn ku nekk na def la ko neex nag ba nga dajeeg sa borom wax naa leen ci xutba yooyu ma fi waxoon ci wayjur mbokk yi bari waa na ci ñun ñoo xam ne ndeysaan mënu ñoo avancé fekk seen àq way jër leen jàpp wallahi lii lu am lu wér la am na ñoo xam ne ndeysaan teraanga day daw ay xel ba ñu janee sa diggante ñaari xaran koy tànk doo mën a sëgg far ko sa digg li danaan kat kat taaral doo mën a sëgg far ko fekk sa àq way jër moo la jàpp da nga gis waa ji jekk ci tedd lool te du mënta tedd nga gis koo xam ni subhanallah yàlla ñu ngi koy defee aka aka kéemaane xuququl walidayn yonent yàlla bi nee na mbugal mu ne sunu borom mën na kaa nekk ba àllaaxira ba mu des ñett yii ñett ya bokk na te mu ngi dëng ñaari way juróom mbugalam moom fii ci àddina rek balaa àllaaxira boobu moom du xaar àllaaxira fii la la yàlla mosal bala ngaa dem kon nekk ci dëgg ak xam sunna ak xam diine raw gis nga nee naa raw sa baay loolu sëbul sa baay loolu nit ñi lay saf raw sa baay mbaa am ay ndombay tànk yooyu bis boo taxee sa kanam baay safatu ko gis nga doomu aadama bu demee bañ fal ko président de la république bu ñëwoon taxaw ci kanam baayam ndombay tànk yooyu bu dee ci l'islam la ñuy àtte safut baayam moom islam moom noonu lay àttee parce que dafa dafa féete kaw orma jooju nag nit ki moom la war a am ci digganteem ak way juram Saad ibni Abi Waqas pour wan la saxaaba yi niñ dëgëree woon nag aaya gi ci moom la wàcc nee na sama yaay bi mu yëgee ne tuub naa dugg ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ci lislaam dafa mer mu woo ma ba ma ñëw mu ne ma saa bi gis nga diiney Muhammad ji boo ci génn damay def garal de la fin xanaa fee yàgg yàgg na fi de waaye liñ fi yàgg yàgg na xamal ni aada yéefar la yéefar yee ko doon def nag moom loolu lañ ko bàyyi xel yàgg na fi lool nag du barki démb de garal de la fin moom ay entreprise yi ngeen dégg ñun ba mu commencé yàgg na waaye nag moom aada yéefar la muy damay def garab de la paix ba dee bu ko defee su ma dee nit ñi dañ naan la yow yaa rey sa yaay ndax yaa xoole ba sa yaay dee xam nga mu ni ko fa tu ay yaru bi ummik dañ lay xasee sa yaay ki xoole ki rey yaayam maam xam nga yaa rey sa yaay wax dëgg yàlla baat la bu diis meer bi xëy rek ni du lekk du naan jazakumullahu xayran barakallahu fikum masha allah saad saad du mu saab saad la mu ni ko bu ñee la yaa rey sa yaay mu ni su ko defee di nga am gàcce meer bi yendoo xiif ba ngoon jot meer bi dem na ba xiifaay bi yegg na ci dañ ko doon forcé mu lekk mu bañ bant la ñuy jël naal gémmiñ gi rek xaral ko ci pour di ko xool muy jàll far force xam nga mbir mi metti na de saa di ñëw ni ko yaay mu ni naam mu ni ko yaay demal nga lekk nga naan gis nga boo yoroon téeméeri bakkan muy rot par benn di rot par benn ba des benn sentiment saad du wadd ba tax mu génn ci diini muhammad allahu akbar mbokk yi iman daal jaaxal na ma ni muy def nit iman jaaxal na ma lool ni muy def nit daa gaaw ci soppi nit lool maire bi xam ni saad mii bu fekkee continué naa sama grève de la faim bii dinaa gont dem àllaaxira baa ma farane dem fi waaye saad du génn maire bi daal di wàcc wàcc fam ne kon ndànk dem lekk kon ndekete nit ki ak lu mu ak bëgg-bëgg way juróom bu fekkee dañ koo woo ci ku mooy yàlla na bañ falaa tutaahuma bu leen topp waaye wa saaxibma fi dunya maarufan rafetalal jëme ci ñoom wattabia na nga topp sabila man anaaba ilayya yoonu képp koo xam ni mi ngi dox jëm ci man ah a gis nga de wattabia bu topp jotee xam nga roy ak jàng ak yooyu yëpp moom am na yoon ak luñ ca wax waaye topp topp ak toppandoo ak roy roy moom bu xësee am rek mu ni wattabia na nga topp te roy sabila man anaaba ilayya yoonu koo xam moom da ngaa xam ne kii yoonu yoonu suñu borom bi la jaar kon ndekete nit ki buy topp la borom ak dañuy waxoon wa yabtadi bil muttabiina li sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam booy roy moom seetal ña topp sunna muhammad nga di leen roy mu ni summa ilayya te ngeen xam ni fi man day marjiukum moo nekk seen dellu si waay ci man ngeen di dellu si kat fa unabbiukum dinaa leen xabaare bima kuntum taamaluuna mboolem li ngeen doon jëf ci kaw suuf ah foofu nag la ko tàmbalee ci way jur yaag sa bàkkaar yaag sa yiw waag ila axirihi boo limee lépp sunu borom subhanahu wa taala muy danaa leen ko xabaare summa yunabbiukum bima kuntum taamaluun wala fa unabbiukum dinaa leen xabaare bima kuntum taamaluun mboolem li ngeen doon jëf luqmaan mu yaa bunayya eey sama doom ndoom sama comme ni ko war a waxee yaa abati yaa abati mooy bàyyi sama comme na ko Ibrahima doon waxee bàyyi ja foofu tamit da nga ci jàng lu mel nii de xoolal Ibrahima bàyyam ni mu meloon ak ni mu doyee woon waar ci kéefër xoolal ñaata yoon la ko wax yaa abati ah yaa abati laa taabudu shaytaan yaa abati inni qad jaani min al-ilmi maa lam yaatika ah gis nga bàyyi sama bàyyi sama waaye ji ne ko la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyan menacé ko xas ko saaga ko xas na ko menacé na ko saaga na ko ni ko da ngay génn sama kër te taxut Ibrahima def benn geste buy wane ne dëngi naa sama wayjur salaamun aleykum kon nag maa ngi lay ñaanal yàlla astaghfiru laka rabbi innahu kaana bi xafiya li ma la desal mooy ñaanal la yàlla moom lépp ni yow ndax sa way juri waxuma sax jaar ngaa moom fii fépp waaye yow sax sa tool ni muy bari bari bari ndax mas ngaa sujjóot juróom benn yoon yoo xam ne bu nekk ñaanal nga ko c'est ça le problème ñun bu ñuy bëgg da ngay sa tool ni muy bari bari bari yow est-ce que mas ngaa jug ñaari guddi nga ñaanal sa way jur yow suñu borom mbokk yi mbokk mi da nga am ay soxla sa soxla yi da ngay jug guddi nga di ci ñaan bii da laa ñur coow li muy bari bari bari mooy li ngay wax daf la ñorut ndax bu la ñoroon ni nga jógee guddi di ñaan ci say soxla def dafa ñu Abu Hurayra doon def danaan julli guddi di ñaan yàlla gindi way juróom yonent ndeysaan way juri di saaga yonent bi rek muy ñaan yàlla na ko yàlla gindi benn bis mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jooy yonent bi ni ko looy jooy mu ni ko li may jooy kay mënuma la ko wax yonent bi forcé ko mu ni ko man sama yaay lim lay wax ci lu bon loolu sama nopp yi mënu koo dégg sëñ ma dimbali nga ñaan la ma yàlla mu gindee ko yonent bi ñaanal ko ni ko day tuub abu hurayra nee na bi mu nee day tuub rek ma samp xel mi ndax ñun allahu akbar dañoo gëmoon waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëm goo xam ne mu samp xel mi parce que gëm na dañoo fekk mu tuub bi mu digg see ci biir kër gi fekk yaay ji tuub na daal di muuru subhanallah ndeysaan abu hurayra kott koy jooy yonent bi ni ko dinaa la ñaanal yàlla képp koo xam ni ci xeet wi nga bokk te gëm yàlla da lay bëgg day bëgg ya da lay bëgg yaayu Abu Hurayra ku gëm yàlla gis bokk ci mandarga gëm yàlla mooy bëgg Abu Hurayra bëgg yaayu Abu Hurayra xal da ko doon ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla gindi ko Abu Bakrin Siddiq bàyyam tuubu woon bokk na ci li ko gën a metti da war ñaan yàlla gindi ko ndeysaan keroog fatxu Makka yàlla ubbi xol bi fa fi fatxi Makka fataxa allahu qalba abi abi bakrin ndeysaan abi bakrin dem ci kër ga indi baayam ñu ngi ñëw baay ndeysaan baay jaa ngi laxal laxal lax màggat a màggat ba nga xam ni ku taxaw ko rafet allah xëy na di waaj a dem lay juróom yéen saa salaam ni ko yow góor bu mag gi daa jëra woo ma di indi tee ngaa bàyyi ma dem fekk ko abu abu abubakar ni ko mukk moo gën a yey ci waaxu ay tànkom ñëw fekk si la yow ba mu tuubee ba noppi yonent bi mu ni kawar gi comme daa weex na ngeen ko ko watal wala ngeen soppil ko ko fuddan ngeen fuddan ko papay abu hurayra tuub muy abu quxaafa kon saxaaba yi nii lañ doon def di ñaan yàlla subhanahu wa taala gindi seeni mbokk gindi seeni mbokk aslam salamaha llahu xifar xafara allahu laha ah kenn ku ci nekk dana def ay effort pour ay mbokkam gindee ko te sa wayjur moo ci gën a jege mënoo mënoo mënoo mënoo muñ mënoo muñ sa wayjur wala sa yàlla di ko mbugal ngay xool te boo nekkee àjjana sax dootul neexati ci yow ndax kenn ku ci nekk la ko gënal mooy walladina amanu wattabaathum dhurriyatu bi alxaqna bihim dhurriyatahum wa ma alatnahum min amali min shay kon ibrahima noonu la doon def kon yaa bunayya mu ne ko yow sama doom innaha na nga xam ni lu mën ci mbir tey mbir innaha damir ji borom xam-xam yi lu koy wax damiru shan la looy lu wala fi naan lu luy mbir tey mbir ak lu mën a xew na nga xam ni in taku su fekkee dafa nekk mithqaala xabbatin lu tolloog aw pepp ha min xardal xardal defe naa atom lañ koy xam ne ko waxee ci wolof sax pepp ab suuf pepp ab dugub xataa lu ko gën a tuuti aw pepp misqaala xabbatin min xardal loo xam ni aw pepp la ba toll ni pepp suuf ci bàkkaar ci aw yiw fa takun mu nekk fii saxratin ci mbëg aw fi samawaat wala mu ñu mërr ci asamaan sa aw fi l ard wala mu ñu mërr ci suuf si réer ak loo ko xeeb xeeb xeeb yàtti biha allahu yàlla dina la ko it yowm alqiyaama aaya yi bokk na ci aaya yi gën a metti ci jaamukatu yàlla aaya yi gën a metti ci jaamukatu yàlla waaye aaya yi gën a metti ci moykatu yàlla la ndax li ko waral mooy maanaam ñun daa am yu nay ngandal ak yu nay xeeb te téereb jëf bi amut ngandal amut xeeb moom laa yugaadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaaha parce que li mu soxla mooy wajadu ma amilu xaadiran moom dafa bëgg ki ñëw rek seen registre nga fekk fa lam coono lépp ak lépp doomu aadama mbokk yi lu mu def lu mu sew sew sew bu mu ko xeeb dana ko fekk àllaaxira soo demee ca sunu borom fa muy waxee wala tabxasu nnaasa ashyaahum nit ñi seen yëf yëfaan yu xeebu yi bul ko jël la tabxasu ci booy peese al baxs ci peese la gis nga boo doon peese tey ba peese bi mat benn doomam gerte wadd ci xalaatu waaj ñëw ci yow suñu borom mu ne yëkkatil doom bi nga delloo ko daa laa tabxasu naasa asyaahum gis nga boo amoon ni ab lañ set nga dagg say wee ba pare delloo ko lañ setam parce que àllaaxira baalante dafay amul xam nga maanaam fii ay yërëmante sentiment baalante am na fii waaye amul foofu comme amu fa nag moom amul kii sama mbokk la amul sama xarit la yooyu fii la yem moo tax yonti mu ne hey ñu ne naam mu ne yi ngeen féq lijjantee leen teentiintu ko fii parce que xoli amul baalante amul jéggalante laa samma dirham wala dinaar dërëm amu fa dinaar amu fa monnaie bi ñuy wecceeku foofu du euro du franc du CFA xam nga lu mu doon tiyaaba allahu akbar loo ameel nit lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw nga di ko xeeb delloo ko gis nga yiw bul xeeb jenn defe naa Abdullahi ibn al Mubarak moo doon wax wax jii may bëgg a wax waaye li nga bind ci xadis bu doy yow bind nga bind bind bind mu ni aman na kàddu gama yàlla yi nar a gën a gërëmee ba léegi àggaguma ca kàddu gi mu yaakaar ci la ko yàlla yi gërëmee ba léegi àggagu ca moo tax muy kon nii bind rek moo tax Abdullah ibn Umar wax su ma wóoree ni yàlla nangul na ma ñaar raaka man fi ne ñeme na maa dee ndax innama yataqabbalu llahu min almuttaqin kon lépp loo xam ni yaa ngi koy def ci yiw dana feeñ waaye looy def ci safaan ci min nag da nga koo fekk de wa wajadu ma amilu xaadira sunu borom ni la ngeen def fekk na jiitu na leen fa walaa yazlimu rabbuka ahadan sa borom daf tonteen mbokk yi xoolal gone bu ñuy yar di ko yaree lii nga xam ni ponkal yee ci war a yaru tey xam naa jaral na nag bu dar sam tese ñu topp nag xisab waa ji yeeg doom bi ndax kii moom xam na ni fa mërë mujj kii taan suñu borom lay doon bu màggee ndax lii ñu war a yaree mag gi bu dee lan doon yaree gone ga te nag ñii la salafu saalix doon yare seeni doom de ñii la salafu saalix doon yare seeni doom saalix nee na daa toog moom yàgg mu jooy mu ne ko lu tax ngay jooy mu ne damaa xam ni sama papa na dëgg na addina ba nax ñu dem dem muy Ahmad ibn Hanbal ndax yori daal di ko dabb daaxi dix-huit ans nanguwu koo sànni moom rek lay sol kooku bokkul ak nun yemul ca loola saabu neexal jógee ca nguur jëm si ci moom du ko jël saa bu nguur jógee ci jógee ca neexal neexal jógee ca nguur mu ni merci moom bëggut loolu subhanallah dëddu addina ragal yàlla yaxya bnu mahin ak ahmad bnu hanbal ñoom ñaar ay xarit lan woon taqoo keroog bi yaxya bni mahin xawee diit diital diit diital rek laa waxte yaxya bni mahin ponkal la ci aymatul xadis bi mu diit diitale ci mexli ko alquran ahmad da koo mere na bu ko nuyoo rek pare na ca te ñoom ñaar nii lañ defoon ñooñu seen diine mu leen gën a luñ mën a am kon noonu lañ doon yaree seeni doom ak seeni njaboot saalex nee na léeg-léeg sama baay day am gan gu ragal yàlla ñibbi jot mu war koo gunge mu woo ma ne ma demal gunge ko mu ne ma doo jàpp ne pour gunge mu ni bi ma màggee laa doog a xam ni kii dafa bëggoon ma topp gan gi di ko xool ba mën a royaale ca moom yu baax yi mu am balaa ñibbi moom la ñuy yaree xale moo tax murabbuun yi tey dañoo amatul moo tax ñi ñuy yar tamit mënuñoo yaru kon nit ki mu gëm ñu murum toon kenn gone gi toll ci daara ji jàng ñu gëm loo ni ko gis nga ma duggee ci néeg jël murum jàmbur ci saagab jàmbur ëllëg yàcc bi allah yàlla dina la ko indi de te xam nga ni buñ ko nattee xool nam toll ci yiw dina metti ci yow lool mu ni ko yati biha allah suñu borom yàlla dana ko indi inna allah sa borom yàlla latifun ku am ñeewant la wallahi ku am ñeewant la ndax ñeewant gi mooy wax nañu lépp faf maanaam ñun ñun ñëpp dañoo war a mën a baaxale parce que lay tax ñu bon lépp wax nañu ko lay tax ñu baax la wax nañu ko waaye xabiir ku dañ ci kumpala nag ndax ki mën a fexe ba lépp lu mu sew sew nga mën koo indi gis nga bi nga jaaree ci mbedd mi am ku ku ku la romb ku sol lu bon nga piis ko xool xoolaat suñu borom ne yaalamu xaainata al ayun ma tux fi sudur ñi nga ànd ñëpp mën nañu ba nga xam ni mooy nga yàlla parce que bët sàcc bët daa gaaw waaye suñu borom ni xamal ni yàlla yaalamu xaainata al ayun li bët di sàcc yi xool gis na ko wa ma tux fi sudur li dana noppiwaale wax ko yàlla xam na ko wallahu yaqdi bil xaq ëllëg day ànd ci dëgg nag allahu akbar yooyu bu ko nit ki xamee maanaam muraqaba gi moo tax Sayyid Xutb rahimahullah ci tafsiru suratu Qaaf daf koo tafsir tafsir bu kéemtaane bokk na ci lim ciy wax ma yalfazu min qawlin laa ladayhi raqibun atid mu ne raqaaba gi nga xam ne moo sëpp kaw nit ki féete ko ndeyjoor féete ko càmmoñ du ko may mukk mukk mukk jàmm mooy tax nit ki dootul amati maîtrise ci li muy def mu ne moo tax dootul amati maîtrise parce que raqaaba gi da koo wër fépp mu wóor ko ne que ne moom ay caméra lañ ko samp xam nga li lay wax ni doomu aadama yi lu ñu def ñoo ko tey gis nga boo duggoon léegi ci benn supermarché ñu ne la benn caméra moo fi nekk waxuma la nga sàcc sax laa wax nga fallaxee loo war ko fallaxee tooñ rek caméra bi jàpp na la defe naa fan yi yéen a ngi dégg waaju ñu jàpp kilifa goo xam ne dañ doon xam ne dañ koo takkal appareil yoo xamante ni fa mu nekk lu mu fa nar a def ñoom dañ koy gis xulul fi nga xaala googu doomu aadama moo ko man te allahu akbar walillahi almasalul aala walillahi almasalul aala sunu borom subhana taala lam man ëpp na loolu kon xale bi ñu yar ko ci loolu mu gëm ni inna allaha latifun xabir te lii sax man gi lañ ci war a yar sax uma la xale yi nag mu ne ko yaa bunayya ay doom sama aqimi salaata del taxawal julli aqimi salaat del taxawal julli assalaa foo ko fekk ci alquran mbaa ci ahadis yéen saa salaam aqim la yor taxawal iqamatu salaa taxawal julli taxawal julli mooy waajal gaag xusuur gaag ictidaal gaag tumaaniya gaag tahaara gaag surut yaag mandubaat yaag mustahabaat yaag yu yëpp day man iqamatu salaat doog a ñëw bu dee julli kese moom julli ñëpp ko man julli moom salaa kese loolu bi ñëpp ko man mooy julli waaye da ngay julli ba noppi ndeysaan doon ci julli gi dara parce que defoo iqamatu salaat taxawal julli kon xoolal xale bi dañ ko yar ci julli yéen bi alayhi salatu salaam nee na gone bu amee juróom-ñaari at nan ko tàmbalee digal mu julli bu amee fukki at nañ ko tàmbalee teqale tëdd ñaar ñi bokk ndey ak bàyyi di góor ak jigéen buñ bokk ci fun tëdd nee na bii de moom nun nun nun nun nun ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko mënut bari naan de parce que dëkkuwaayee tax mënta nekk yent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su gaaf doon am day am ci ñett wawaay bu bon jigéen ju bon kër gu xat bu kër xatee loolu dootul mën a nekkati parce que dañuy jël fukki nit ak nangam ay góor ak jigéen ñu sa mbaxloo jël photo yi wengal sànni fële ñëpp tëddandoo moo tax it li ngeen dégg ngeen di ko dégg tey nag xam ngeen ni li ngeen dégg te gën a pire rek ndax du lépp ay feeñ moo tax njàngale sax dafa bëgg nit ki ci mbokkal ndey ak baay sax laa wax buñ tëdd ci buñ bokk ci tëdd bu dee góor la ak jigéen ñaari góor bokk sàngu sax sunu da koy tere ñaari góor bokk sàngu sunu da koy tere yonent bi alayhi salaam day tere loolu ñaari góor bokk sàngu ñaari jigéen bokk sàngu xool nga frontière yëpp dañ koo tëj ngir dañ ci yar xale bi moo tax mu ne ko yaabu na yey ndoom sama aqimi salaata deel taxawal julli wa amur bil maarufi te ngay digle lu baax wanha anil munkari ngay tere lu bon xam li ma jaaxal mooy bu ne yow dama nekk na fi daa ay xët maanaam xale bi dafa mel ni ab daay la bu ñuy digal yow gone gi kay dañ ko waroon a boole ci ñuy digal lu baax di ko tere lu bon fekk gone gi moom war naa dépassé loolu moom daa toll ci moom luy digle di digle lu baax di tere lu bon xale bi dañ koy yar ci digle lu baax ak tere lu bon su ko xale bi tàmmee mu di ko digle ji moom li la nga dégg xale bi ne tuuga waay loolu baaxut daa am fu mu ko déggee daa am fu mu ko déggee te ñoom yi ne intéressé dañ ci yar xale yi nag yu ne intéressé nañ ci eh courant bu ko kenn laal boo ko laal dalay maas ah waaw loolu da laa intéressé moom gis nga sa bandage bi ñu defal ba ci def boo ko dindi waatee dinaa la caw ba nga bëgg a dee yow lii kër ordonnance bi ni mu seeree waaw loolu da laa ñor gis nga gaz bi bu ko kenn laalat lii wóorul waaw loolu da laa ñor xale yi kenn du laal gaz bi gis nga ana seen criminaux yi ngeen doon demee entraînement xanaa fóotuñu ko parce que loolu da koo ñor waaye ndax dégg ngeen jàkka ja tey ci fajar ak yooyu moom bokkul ci programme bi yaruñu xale yi buñ leen doon yar xale bi da ngay dem ba yow da nga ko doon fàttali moom mu lay fàttali dafay bokk ci l amirina bil maaruf wa nahina anil munkar dil digle lu baax tere lu bon xam ngeen digle lu baax tere lu bon ndeysaan amatut te yent yàlla bi neen saa bu ngeen ko defut bu yàlla indee mbugal buy mbugal yéen ñi doon baax def lu baax sax du ngeen mucc mbaa ci yéen la ñuy tàmbalee faf bokk mu teg ci ni ko wasbir ala ma asaabaka te ngay muñ li la dal ndax amru bil maaruf ak nahyi anil munkar kat xam ngeen ko moom des na la ci xas des na la ci saaga dinañ la dëkkal foo dëkkut ila axirihi wasbir na nga muñ ala ma asaabaka lépp la dal xale dañ koy tamal muñ xale bi bu ñëwee rëq kenn du fi nekk naa ko yow ti sonn nga sa tànk bi metti na lii ëpp na ci xale loolu kenn du ko yaree xale bu ñëwee da nga koy wax ni ko hey yow santal yàlla yow da ngay raq rek am na koo xam ni moom oto joggi ci tànk bi tànk bi moxo ñaatoo ci kooku sax dama koy yërëm xale bi dëfut day fàtte boppam noonu la ñuy yaree xale da nga koy tamal muñ mooy li ma leen wax keroog rek xale bi di nga ko tamal ñaari sunna ba moom tamit bu feebaree nga moccal ko boppam boo ko gënal nga jox ko comprimé waaye déedéet ñun dañoo yar suñuy gone ba nga dem pharmacie jëndal ko garab moo ko gën a nga moccal ko ñaan ak yonente bi alayhi salatu salaam ñun noonu la ñu yaree suñuy gone gis nga xale bu naan ñaanal ma yàlla rek loolu baax na wala moccal ma déedéet sama bopp day métti loo ci xam may ma paracetamol loolu la xale sama xale yi wax parce que yaruñu leen ci ci ci lii waaye nit ki boo ko yaree ci wasbir ala ma asabaka muy muñ ci li koy dal natt yi natt bu ñëw rek ni ko mag bi muñee moom na ko muñee noonu mu ne inna zalika yii nag min azmi al umur ci mbir yi ñu war a dogu la bokk gis nga de mbir yi ñu war a dog yi nga xam ne kenn waru koo caaxaane bu dee ca yar ba kenn waru koo sàggane bu dee ca def ga kenn ku ca nekk na ca amul dog mu tegal ni ko wala tusaa'ir xaddaka linnaas wala tusaa'ir bul ñëkkal di aj di fuññaaral xaddaka say lex linnaas ñeen nit ñi di ñëkkal sa kanam mooy bul ñëkkal sa kanam rek wala tusaa'ir xaddaka linnaas bul ñëkkal sa kanam ci nit ñi yonent yàlla bi nee na kenn mënta am alal ba man satisfaire ñëpp may leen ci waaye mën naa am loo xam ne mën nga caa may ñëpp ñu ne ko la mu ne rafetal sa jikko ubbi sa xar kanam est ce que xam nga boo tase sa mbokkum jullit nga ubbil ko sa xar kanam ba mu xam ni yow mi déncaloo ko lu bon ah malaaka dañ lay pointé tiyaabay ku xëy saraxe ndekete nit mën na xëy saraxe ay saraxe yu bari te yorut ñaar dërëm walaw an talqa axaaka bi wajhin talq kanam gu ubbeeku yéene ko yiw gis nga doomu aadama yi maanaam li wolof yi léeg naan kanam du kaso waaye koo ko tëjal mu xam ko loolu la te moo ne sax léeg-léeg wallahi day fekk sa problème bopp la du dara tax nit ki njort jàpp ni sax da nga koo jàppal bul bon wala déet parce que kanam kanam kéemtaan la ci suñu borom def ndax kanam ah day firndeel liy nekk ci nit ki moo tax waxoon naa ko ci xisab Yuusuf ba gars yi wa jaa'u abahum ishaan lu tax ñu bàyyi ba guddi jot ñu doog a ñëw parce que kanam day feeñalaate dañoo def seen njombe ba noppi ci suba sa lañ ko def au lieu que ñu ñëw ci ngoon gi déedéet ñu bàyyi ba gannaaw gee wa jaa'u abaahum ishaan yabkuun parce que jooy ya ay jooy jooylu la te jooy jooylu yu bëccëg borom technique dana ko xàmmee ñu bàyyi ba guddi comme lamp yi néew fi nag buñ dikkee yabkuuna bu ñuy jooy jooylu kenn du mën a xàmmee kanam ndax daa lëndëm loolu mu pexe la gis nga waaye nag li yàlla inna allaha la yahdi kayda alxaa'iniin yàlla du jubal xol pexe noonu lim jibee xoolal rey doomi jàmbur ba noppi jël mbub ma taqal ko ca deret ji te fàtte koo xool ci indi ko te leen tilli gaa ko lekk ñu ñàkk jubee rek mooy inna allah la yahdi kadal xaa'inin xam nga woon dëgg yàlla moo tax Yaaquba xool mbub ma moom yàgg muy dëgg dëgg ci liggéey baax na nag damaa xam ni lekk sama doom bi ba pare te xotti wuñ mbub mi gis nga foofu daa mooy foofu dafa mooy loolu mooy inna allah la yahdi kadal xaa'inin mu ne ko wala tusaa'iru xaddaka linnaas bul fu ñaaral sa xar kanam ci nit ñi ah fii wax ko lil muminina de lil muminin waxul loolu de lim naasi la wax nit ñi rek bu dee bi yéefar la bu ngeen séqut lu bon sañoo koo jël karwaas dóor ko yent yàlla bi ne ne bokk na ci ñi gën a rëy bàkkaar àllaaxira mooy yéefar boo xam dañoo signanté moom ay accord mooy dañu lor duñ ko lor ba pare mi ngi joxe galak ba pare yow nga dem rey ko ku ku ko def ci ñi gën a rëy bàkkaar nga te moo ne yéefar nga rek parce que dañoo signanté moom lu leer mu ne ca lam nekk nekk moom sonal ñu bokk ci ñuy sonal tey day joxe galak te tooñuñu donte nag tuubut loolu tamit lu ma ta bàyyi xel la mu ne ko wala tamsi fil ardi bul dox ci kaw suuf si maraxan di pënëx pënëx yi di rambax rambax yi suñu borom de gis naa yeneen fàttali ci suratu furqaan suñu borom di wax ni wa ibadu rahmani alladina yamshuuna ala al ardi hawnan jaami yàlla yi ñoom boo leen xoolee rek bëgg leen bu ñuy dox day fekk ñu yàkkamti lool waaye mel ni ñu yàkkamtiw ci li ñuy def dara waaye nag waxuma la ñu ne fii tendee falu de déedéet Omar ibn al-Khattab ci jamono bokk na ci ñam daan caw waa joo xam ni sa way booy dox mel ni malaaka yi sa way dañuy wàcc bàyyi ko ci asamaan si ah yow koo xam ni sa way mën ngaa benn mètre rek mën nga ko dox ci cinq minutes benn mètre rek nga def ci cinq minutes Omar ibn al-Khattab génne karwaasam nga durra ba ci biir kër ga bàcc bàccal leen ba ba ñu bëgg a dee mu ne leen yamsuuna ala al ardi hawnan tekkiwul mooy ngay laccax laccaxi nii déedéet da doon tere loolu moo tax Aïcha bu leen siinam dana ba Omar fekk leen foofu rek loolu lay wax ba Omar fekk leen foofu kon tekkiwul nit ki mooy day mel ni ku amut lu mu bëgg ci àddina déedéet waaye nag génn xëtër xëtër gi kat wax dëgg yàlla kooku lislaam da koy tere moo tax mu ne wala tamshi fil ard marahan doomu aadamay dox di di di di xëtër xëtër yi mbaa muy dox di bonde nag moo tax sunu borom mu ne innaka lan tabluga al ji lan taxriqa al ard wa lan tabluga al jibala tuula maanaam mënoo këdd suuf si ndeysaan ba faq ko te suuf si daan la yabna aadama ta'il arda bi qadamayka fa innaka amma qaribin fi batni sa'ir joggil nu la neexee nag bu yow nga xam ni ay fan rek laa la may ci sama biir nga jëm bu yow nga joggi nag ndànk defal ndànk rek fii nga jëm si loolu doomu aadama suuf di wax nit buy dox mu ne ko inna allah suñ borom yàlla laa yuhibbu bëggul kulla muxtaalin képp koo xamante ni kuy rëy rëylu la waaye faxuur mu nekk koo xamante ni ku bew la borom bi subhanahu wa taala bëggub loolu waaw suñu borom subhanahu wa taala dafay tere waajoo xamante ni moom muxtaal mooy day bew di rëy rëylu ci la nga xamante ni mooy ab doxam ha muxtaal mu nekk kuy rëy rëylu waaye faxuur mu nekk koo xamante ni kuy ciitaru la ku bew ku bew mu tegal ko ci ni ko waqsid fi machib booy dox doxal ndànk doxal dox bu yem wagdud min sawtik te booy waxit nga wax ndànk inna ankara al aswaati baat bi gën a soof ci baat yi loolu la ankar bi tekk baat bi gën a soof inna ankara al aswaati baat bi gën a soof ci baat yi la sawtul xamiiri mooy baatu mbaam man nag nee naa mbaam xam naa ne jàmm dalu ko mbaam moom aayaat yi ma gis ci alquran yépp moom kenn du ko waxal jàmm xadis yi ma ci gis yépp kenn du ko waxal jàmm mbaam daal xam naa ni moom foofu la fi toppee man nag xam naa jaaxal dama lool mbaam moom alquran ba alquran rek misaal mu ci joxe rek ca kawam lay këpp xadis yi yonente bi saa sallam yépp yow xanaa da ngaa bëgg boo njëkkee siggi imam yàlla sa sa bopp bopp mbaam gis nga loolu lay faral di wax boo déggee mbaam sax a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim moom mbaam daal xam naa ne moom am na natt de na natt dëgg nag moom ndax rab yi ci des sax ñoo ko ëpp sax bi mel ni ñoom ganaar rek ñoom seen nga xam ne moom bu ganaar sabi rek allahumma inni as'aluka min fadlik ñaan ci ngëneeli yàlla yi ndax yàlla mu ne wasalullah min fadlik kon suñu borom mu ne ko na nga wàññi sa baat booy wax rawatina doomu aadama buy wax loo xam ne amul solo waaye rawatina nag jigéen nag nga xam ne moom sax la gën koo digal mu wàññi baatam léegi nag léegi jigéen ciy wax sa waay da nga yaakaar ni ci ab gendarme la loolu l'islam da koy tere jigéen day wàcce baatam nga xam ne buy wax sax kenn du xaw a ku sori doo dégg kon yii mooy ndénkaane yi nga xam ne moom la luqmaan doon dénk yii moo rot ci alquran am na yeneen yu rot te borom xam-xam yi di ko wax ma xamul fu waxtu yu toll am na ay ndénkaan yoo xam ne borom xam-xam yi dajale nañ ko ahlu siyar di wax ni luqmaan doon na ko jox doom ji waaye yooyu amaan na mënees na koo fekk fi gayri alquran ci lu dul alquran gis ngeen dénkaan yi ni mu amee solo benn bu ca nekk rek daanaka boo ko jëloon rek ab bind mën naa matu bind buñ ko toppee nag damay ragal mu jël suñu waxtu lu bari waaye boo seetloo ndénkaan yi nga xam ne luqmaan doon la ko jox doomam te génn na alquran bokk na ci doon la ko wax yaa bunayya inna dunya bahrun amiq ndoom sama mu ne tekk di ko déglu mu ne ko xamal ni àddina géej gu xóot a xóot la mu ne ko waqad gariqa fiha unaasun kathiruun nit ñi bare bare bare bare lap nañ ca géej gi ngan la waay boo bañee lap na nga daaj gaal bu ñuy tuddee gaal ak ragal yàlla ah te nga côté yi na nga ko bombee ak li nga xamante ni moom mooy liimaan mu ne dawalukaay ga na nga ko def wàkkiilu ci yàlla amaan na mën ngaa mucc te yaakaaruma sax di nga mucc su boobaa allahu akbar xoolal matukaay yëpp ku ko jël ba pare mu naan la amaana di nga mucc te yaakaaruma sax wala araaka naajiyan te xam naa sax doo mucc nag loolu bokk na ci ndénkaan yi mu ko doon jox te benn bu ci nekk ci yéen boo ci taxawaatee jëpp lu bari ndax àddina moom am jàng la ñun nag mën nañoo jàng diine fàtte jàng àddina xisa boobu ngeen dégg joxaa doon ko dafa doom jalu am solo la njàngale la yoo xam xëy na nit ñi dañ koy faral di udduxuuka mooy reetaanukaay waaye joxaa moom udduxuuka la waaye jàngalekat la de léeg-léeg mu wax wax ju am solo léeg-léeg mu wax wax yoo xam ni am na solo lool bokk na ci lan doon wax mooy doom bi jàng yow ba ñëw na xam-xam nga jàng kaay ma jàngal la addina gis nga aka am solo nit ki ñor gis nga boo yeewul lan lay yeew lan lay tekk ci diine ji nga nekk yeew la moo tax saxaaba yi boo leen seetloo fi ngëm yàlla gi tolloog ragal yàlla gi foofa la ñor ga ak muus ga toll bokk na ci li mu ko doon wax nee na ko gis nga way jur jël ab ak karwaas bu yàppee ne xale bi làpp ko jot na mu làpp làppal ko tuuti nee na loolu comme engrais boo def ci gàncax gi nga bëgg mu gaaw a sax engrais bi ngay def ci gàncax gi mu gaaw a sax nee na làpp gone gi loolu bokk na ci mooy caw ko dëgg la nag du uslub boo xam ne moom la ñuy jëfandikoo bis bu ne waaye nit dana toll foo xam ne da nga ko jëfandikoo safiya bint abdul muttalib ah di bàjjana yonent bi di soxnay zubayr di yaayu abdullah ibn zubayr da daan jàpp abdullah ibn zubayr kacciri ba nga foog ni kii da koy ku ya dégg naa waa dëkk bi ñu ngi may jëw xam nga comme fulla la mu ne waa dëkk baa ngi may jëw naan dinaa rey xale bi mu ne man xam naa li may def lan la adribuhu li kay yalij dama bëgg fu góor taxaw mu taxaw fa te moo ne lam doon wax wér na di abdullah ibn zubayr jàmbaar la woon joo xam ni ñenn ci saxaaba yi danañ wax ni gaynde gu waaf la ku bëgg jàmm romb ko jàll abdullah ibn zubayr bokk na ci nee na ko yaa bunayya iyyaaka wad dayn doom sama maa ngi lay moytandikuloo bor fa innahu zullu nahaari wa hammun layli doom sama mu ni naam li la yàlla wërsëgal jéem caa yam nga bañ caa boole leb ndax gis nga leb bu naaj wi tàngee dalay toroxal bu weer wi génnee mu teelaa nelaw ay waay aka aka wax lu wér yéen si yàlla bi nee na nit daana nekk waxkatu dëgg sax mu dem ba mu yàgg mu nekk kàccikat te fekk ay bor a ko ko yóbbee allahu akbar gis nga bor ah du ma wax comme ni ko gars yi waxee ni mënta ñàkk ci dund gi waaye su ma doon su lu ko bi nit ki bu mënta ñàkk lu ko nit ki gën a mën a néewal mu baax gis nga bor mën naa dem ba teree julli ji nit ki sax jàkk jafaf mën naa tey ba nga julli ji juma bor mën naa tee nga def say jaamu yàlla guddi moom doo mën a nelaw moom te léeg-léeg sax nag boo sàggantu na nga nekk waxkatu parce que da nga fii bëgg a nekk di lay ma fii la xar yi jaar ak bëy yi jaar ba far amaat ci yeneen i bàkkaar bokk na ci lim ko wax mooy yow sama doom yaakaaral yàlla yaakaar yaakaarut yow rek la fi nekkal waaye loola bu mu la yóbbee ci di ko moy ndax mbugalam kenn attun ko bokk na ci lim ko doon wax mooy yow sama doom lu diis lu ne man sa baay yenn naa ko essayé xool diisaay waaye musuma yenn lu gën a diis am dëkkandoo bu bon dëkkandoo bu bon mu ni yenn naa lu diis lu ne di essayé diisaay waaye awma diisaayam lu gën a diis dëkkandoo bu bon mu ni ko mos naa lu wex ba tàyyi waaye mosuma lu gën a wex ñàkk ak wax dëgg ñàkk ñàkk moom ñàkk daal xam na la waaja dañ wax rek bu doon nit kuy dox la am xam na damay armé wu rek daa dem ray ko mu jeex ñàkk baaxul de ñàkk day tax nit ki ñàkki bokk na ci yim ko doon wax mooy gis nga boo naree yónni nit seetal ko muus nga yónni ko bu lu yónni ko muusul ndax su yeggee fa nga ko yónni mën na la faa toroxal te du ko yëg boo mënul demal sa bopp allahu akbar yónni te mën a jaxase yónent yónent mën naa jaxase yu bare bare bare bare bare mu ni boo amul ku ñor koo wóolu bu lu yóbbante soo amee soxla demal doxali ko sa bopp nee na ko yey sama doom na nga moytu suur ba noppi wëlbati ku jëlaat lekk di ko teg ci kawam ndax loolu wenn rab rek lu ko faral di xamee ndax moom du doyal suur ndax muy xaj kon da ngay nuru da nga koy nuru mu ne ko yow sama doom bul wex xat xat xat ba jéggi dayoo kon ñépp a lay yàbbi kenn du la soxla ndax lu wex moom kenn bëgg ko waaye mu ne ko bul neex ba mu ëpp nag kon nit ñi dañ lay wanaasu ak ko wax dëgg boo safee sàpp ñépp dañ lay bëgg a lekk di yow waaw waaw ñépp lay soxla boo safee sàpp ñépp lay soxla waaye boo waxee xàttit nag moom mu ne ko nit ñépp lay yàbbi mu ne ko doom sama na nga fexe ba saw ñam ku ragalut yàlla bu mu ko lekk te loolu xadis ñëw na ci mu teg te ni ko problème boo amati demal ci borom xam-xam yi nga diisoo ñoom te nga bàyyi nit ñi ndax ñoom dañuy boolem xel ba noppi boole waale ko xam-xam muy diisoo mu ne ko doom sama gis nga fi mu nekk nii nga jàng ba noppi dajale ci xam-xam lu dul jeex te doo ko jëfe xam nga lu muy nuróol waa ji dem ca àll ba taxan aw sañ mu ngand mu yëkkati mu wér ko ne bii du ko mën a yenn boppam au lieu que mu yem fa mbaa mu wàññi ko defu ko mu ne xaaral ma taxanaat dolli ci loolu mooy ñun li ñuy def loolu mooy ñun moom li ñuy def moom yow taxan li nga yenn daanaka mënu koo yenn sax ne yaa ngi koy dolliwaat bokk na ca lam ko doon wax mooy soom sama soo bëggee tànn xarit na nga jëflanteeg moom tuuti ba bis mu mer nga xool bu meree nu muy mel soo xoolee waaj bi mu ne ngeen jëflante comme la gars yi doon wax na nga bàyyi ba mu mer mbaa ngeen seq xaalis mbaa ngeen bokk tukki mbaa ngeen nangam ah ok am na ñoo ko taab mu ne léegi dama kaa bëgg a fal kan moo ko xam benn ay maa ko ba sa xam mu ne ko mas ngeen a seq xaalis déedéet mas ngeen a ànd tukki déedéet yow toppal xamoo ko aka wax dëgg tukki dafa metti dafa am yu cay feeñ xaalis dafa dafa obligé daa am yu cay feeñ ak yeneen ak yeneen mu ni ko doom sama bala ngay tànn xarit kon na nga bàyyi ba mu mer nga xool meram nu muy mel su boobaa di nga xam ba xam ndax di nga ko mën a tànnam déet ndax léeg-léeg nit bu meree rek daal di far jàdd yoonam mu ne ko doom sama maa ngi lay dénk bul séntu mukk aw tagg wuy bàyyikoo ci nit ñi ndax nit ñi ne buñ la taggee tey mën nañ laa xarab suba te booy séntu tagg nit ñi nag doo baaxle mukk ndax gaa yi dañ daan wax ne riban naas gaayatun laa tudrak gis nga nit ñi gërëm la objectif la boo xam doo ko mas a am moom loolu moom mënta nekk moom nit ñëpp gërëm la loolu mënta nekk kon sàkkul ngërëmal suñu borom mu ne ko doom sama ne ngay bari looy noppi ndax ku nopp moom kenn du ko wax yaa fi def dara da ngay mucc wax kay moom ngay sëgee duggee waaye boo noppee rek mucc mu ne ko doom sama maa ngi lay ñaan booy tànn àndandoo seetal borom xam-xam yi te ngay sukk say oom ci seeni oom ndax yàlla day dundal xol yi ci leer ak ngëm yàlla comme ni ndoxum asamaan di dundalee ndox di dundalee suuf ak gàncax mu ne ko doom sama maa ngi lay dénk nit ñi bu ñuy kër kër di wut àddina yow kër kërin di wut allaaxira ngir ñoom bu ñuy dem bàyyi fi liñ doon kër këri yow booy dem yóbbaale li ngay kër këri doom sama bari alal mel melul ni am wér nekk ci xéewal melul ni bakkan bu teey ñàkk soxlaal kenn dara lenn bis loolu waxoon naa ko fi biñ ko laajoo ni ko lan moo gën a teey ci lekk gi biñ nekk lu gën a teey ci lekk gi mu génn làmmiñ ba ak xol bi lu ci gën a bon mu génn làmmiñ ba ak xol ba lu tax parce que buñ baaxee baax nañ buñ bonee bon nañ benn bis dañ koo laaj ni ko waaw Luqmaan kan moo gën a yées ci nit ñi mu ni waa joo xamante ni faalewul ko ko xas faalewul ko ko tagg moom lu mu am baax na mu ni kooko gën a bon ci nit ñi mu ni doom sama ida mtalaat il maidda naamat il fikra bu lekk ba suur li olof yi naan suur këll loolu baaxul mu ni soo ko defee nee na naamatil fikra sa xalaatukaay bi day nelaw wa xarasatil xikma li nga xam ne mooy xereñ day daal di naax saay nga ñàkk ko wa qaadati l aabo wa an il ibada say cër day daal tàmbale yoon jox boo lekkee lu ëpp mu ne ko sama dernier dénkaane doom sama booy wut na nga moytu soxna su bon jigéen ju bon booy wut soxna jabar na nga wut jigéen ju bon na nga moytu jigéen ju bon mu ne ko gis nga jigéen ju bon mi ngi mel ni ab taw taw boo xam ne daa ñëw rek indaale ndox bu indi lu ëpp waame waameem taw puuke li wala bi tuddee puuke nga xam ne loolu moom taxut taxut noonu ab taw di buub mbalit ni yóbbaale rek mu ne ko jigéen ju bon ja noonu la mel kooku su waxee wax lu ëpp su génnee di dox def xay su toogee yëkkati baatam su meree kenn dootul jégg te it nag jàngoro dina lañ mën a saafara bu wér ba mu des jàngoro yi jigéen ju bon allahu akbar mu ne ko gis nga misaalam jigéen ju baax nag mi ngi mel ni diw bopp mu ne ko misaalam diw bu baax jigéen ju baax mi ngi mel ni diw bopp muy dana nooyal kawar dana rafetal kawar te it nag day mel ni am mbaxana mu ngi ni tegg ca kaw day mel ni lu'lu ak yaaquut wala jawhar ci kaw bopp loolu moom day firnde njàngale yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax xam ngeen ni jigéen jigéen ja ca baax yonente yàlla bi ne sallallahu alayhi wasallam ku gëm yàlla ginnaaw ngëm yàllaam yàlla wërsëgalu ko lu gën jigéen ju baax allahu akbar mataa lu riche la lu cher la gis nga ni nit nit di di di tardé te fekk ay way juróom a ko tardeel noonu la nit gis nga góor goo gis mu raw la nag ci suñu doxalinu àddina bi li ci ëpp xoolal am na ñaari jigéen yu ko dar kenn ci ñaari jigéen yi illaa yaaya ko dar mu wéeru ca moom wala soxnaa ko dar mu wéeru ca moom li ëpp ci liy am nag ginnaaw ndimbalu suñu borom ak tawfiqam jigéen góor mën na laa raw fekk ci yaay la la rawee sa morom mën na laa raw fekk ci soxna la la rawee tamit ndax rawante day am foofu ndax doomu aadama mën naa ñàkk lool yàlla wërsëgal ko soxna su baax su ragal yàlla boo ko xoolee kontaan comme ni ko yonent bi waxee soo ko wanee gannaaw mu sàmm la ci boppam sàmm la ci alalam tey doy loo la nga koy jox moo tax gis nga jigéen ju bon bokk na ci li ko tax a bon mooy mbonte googu dafay wàcc ba ci ay doomam parce que bul fàtte ni moo ko jeexintal ci doom yi nag moo mooy jur mooy nàmpal te maa ngi jeexale darse bi la ma tàmbalee woon keroog lu tax ñu leen wax xamalatu ummu parce que deux ans yu njëkk ñi mooy fi ñuy préparé doom te yaaya ko moom bul fàtte loolu di deux ans yu njëkk yi ñuy préparé doom yaaya ko moom su ko defee loolu war na tax góor bàyyi ci xel bu baax bu dara desul lu dul wut soxna mu tànn góor jigéen ah foofu nag jigéen ñi xanaa dañ naan seenu ahan kay am nañ ci wàllu kay góor am na am na fulla ci tànn waaye jigéen it kadalika ñor def na xadija defoon góor ñi ñëw di indi seen kaat kaat yeeg seen affaire yooyu nga xam ne mooy yëfi àddina yooyu xadija toog fi mu toog nee na déedéet moom daal góor gu gën ci àddina bi lay xaar xol xol xol boobu espoir islam ñëwagul isa jaa wàccu xul wala wàccu xabari daa wàccu dara ñëw fi waaye programme bi baax gëm na nit dafa war a am góor bu baax personnalité dëkk bi yëpp ñëw nañ di la ba xadija mu bari ba mu demee ba gis lu ko doy moo yàble moo yabal jigéen ju ñuy wax Nafisa ni ko demal nga doxal ma yeneen bi bi ñu ko ko waxee dafa tiit xam nga lu muy nurul sa patron bi lay fay nga di ko rooseel mu ñëw ni la takk ma loolu doo lay nurul patron bi nga xam ne bu weer dee bu la fayub doo def doo joxe dépense yow sa kër bu ñëwee ni la maa ngi nii takk ma loolu da ngay tiit gis nga kon lu mel noonu tamit jigéen comme ni ko Aybatu Saraf bi waxee jigéen ak góor ñoom kenn ku ci nekk am na buntu ci tànn nu ngi ñaan suñu borom bool mi defal tawfiq njàngale yi mu bañ a nekk loo xam dañ koy dégg rek waaye ñu jëfe ko wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain